l'actu sur King FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les brèves que nous démarrons avec l'affaire de drogue saisie au port de Dakar sous le coup d'une amende de 143 milliards de francs CFA. L'armateur italien Grimaldi, qui avait cru devoir écrire une lettre au président Macky Sall pour réclamer sa clémence, a posé un autre acte tout aussi scandaleux. Selon Libération qui donne l'information, il a demandé aux autorités sénégalaises de libérer son navire Grande Nigeria dans lequel se trouvait la drogue saisie au port de Dakar pour entamer des négociations financière. Le document le doyen des us du moins se refuse à Ousmane Sonko une visite à Damagay selon IGFM. C'est à travers une publication sur sa page Facebook que le leader de PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko a annoncé que le doyen des us a refusé de lui délivrer le permis de visite au journaliste Adam Gaye en prison depuis quelques semaines a rappelé que Adam fera face au doyen des us ce mercredi matin. Le chef de l'État Macky Sall poursuit son opération de recasement d'anciens ministres. Le dernier exemple en date et euh, la nomination de l'ancien ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Selon la papa Abdoulaye Sek est nommé ambassadeur du Sénégal auprès de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. À Rome, un énième euh, accident mortel a eu lieu sur nos routes ce mardi 3 septembre. L'autoroute à a été le théâtre d'un morceau drame, d'un nouveau drame du moins, avec le choc euh, mortel qui a emporté un jeune Âgé de moins de 30 ans selon Imeya, l'accident a eu lieu à hauteur des locaux de la société NMA Sendeuse. Selon un témoin, le jeune tentait de passer devant un autre véhicule avant de perdre le contrôle de sa voiture sport pour la date FIFA du mois d'octobre. Selon le quotidien sportif Record, l'équipe nationale du Sénégal pourrait affronter celle du Brésil en match amical. Musique pour terminer ses brèves nous vous proposons Daraji Family dans Dank, un titre qui sensibilise sur les dangers contre les dérives euh, sur la route, une chanson qui date de mai 2016. Écoutons. La version Wolof de ces brèves, c'est dans une poignée de secondes. yéen de ngi FM 99.4 xibaar yi tënk lay doon dañ koy tàmbalee kon ak euh, mbirum drogue bi ñu daal di jàppoon ca port bu Ndakaaru bu mel ni kon mbir mi amaan na lu ci bees ki nga xam si moom moomoon bato bi euh, Sénébar bi nekkoon dañoo ko daal di nara alamaan lu toll ci téeméer ak fanweer ak ñetti milliards ci xaalisu CFA ba taxoon mu daal di euh, bindub lettre président Macky Sall ngir mu daal di koy baal moom nag bu nu sukkandikoo ci libération yéenekaay li mu daal di defaat tamit njombe la ndax dafa daal di bind ñi la di njiiti réew wala sax ñiy euh, yore mbir mi ngir ñu daal di koy euh, delloo bato boobe te daal di euh, tàbbi ci mbirum koppar maanaam mu jébbal leen ay xaalis ngir ñu daal di koy bàyyee ak batom boobee doyen des juges dafa daal di bañal aadama gay ngir Ousmane Sonko dem seeti ko ca kaso ba mu nekk IGFM moo daal di joxe xibaar bi mu ni mi ngi ko jële kon ci compte Facebook bu Ousmane Sonko foofee la daal di xamle ni kon doyen da ko daal di bañal kayit bu koy may mu seeti Adama Gaye ca biir kaso bu Rebeuss ca ka fàtte fàttali sax moom Adama gay ni ki tey jii eh, dina daal di janloowaat ak doyen des juges njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall mi ngi woyal kon li mu duppee woon opération recasement moom nag eh, am na kon ay ministre yoo xam si mi ngi woy di leen am fu mu leen dugal bi ci mujj kon moo di ki fi nekkoon ci ay jamono ministre agriculture ak équipement rural di Papa Abdoulaye Seck moom nag tab tab na ko mu nekk ambassadeuru Sénégal ca FAO di ko teewal kon foofee ca diwaanu Rome am na beneen accident kon bu ñu nemmeeku ci kaw bi bii sax ci autoroute à péage bi la daal di xewe ca fay tolloog société bi la di NMA Sendeuse benn waxambaane buy toll ci fanweeri at moo yoroon benn oto doon bëgg kon doublé beneen taxaw ñu daal di euh, mbëkkante ba mu daanu moom moomee sax dafa daal di euh, ñàkk bakkanam xibaar bi e ñoo ko daal di joxe xibaaru tàggat yaram kon date FIFA mois octobre bi nu jëmmal ci ak fàttali sax Sénégal footballu nu seen jongante ci mois septembre wi ngir waxon ni dañuy daal di dallu record yene kay nak limu daal di xamle moo di équipe nationale bu Sénégal Brésil la daal di bëgg footballal fubal te daanaka mbir ma tamit sori nañ bu baaxa baax ci waxtaani musique la jéxalé jeexale tënkum xibaar yi tay ñu leen di diktal woyu daara ji family bi mu duppé ndànk way la woo xam si tamit day daal di sensibiliser doomu adama yi ci kaw talibi mu nekk tamit jamono jo xam l'accident yi bari na lool 2016 la génn doon weeru mai ñu teewlu. code de la route bi nga sacrifié magani yaa ngi encaissé yàppa mu fees oto bi xolo fii rétro bi yow doo nandite yaa ngi doublé danger bu clignoté dawaloo benn yoon yaa ngi jalgatee dëgg dëgg xamuloo lu sécurité xanaa da nga bëgg a xaru yaa ngi njëkkante de yaa ngi benn grillage bi de musiba dee xarak mbaam di fa am buti bi dee oto bi dee fan la mujjee lan dee ay bëgg na mi noonu kon mbokk yi li tënk la woon ci ay xibaar fii ak euh, lu mooy benn waxtu yeneen i xibaar lu mooy loolu kon Al Ndiaye mooy wël ak équipe am ci King Morning. mais tu sais Saliou en fait euh, dawal nànk dal nànk euh, te nit ñi nañu respecté code de la route parce que vraiment tali bi mi ngi rey doomu aadama yi mais à une vitesse vertigineuse dafa doy waar. surtout jamono ji daanaka une semaine a ngi nii gars yi mënuñoo toog te dégguñu accident te accident yi am yëpp am nañu ci ñàkk seen bakkan. mais c'est vrai. doy na waar code de la route respecté leen ko te ngeen dawal nànk vraiment absolument c'était l'essentiel de l'actualité tu compris nous allons passer à de la musique euh, Bobby Brown Ronnie après nous, déglu Ace of Base All That She Want après on parlera de santé drépanocytose ak Maïté.